Thank you.

cada en su lugar, canten yo yo te mando. jërë ngeen jëf euh, la famille hein may nuy ñëpp chat ba chat chat ba chat c'est la famille may content trop trop trop trop trop ci yéen ndaxte damay nuyoo bi nag ah, comme d'habitude rek ñun ñëpp ni ngeen koy defee euh, mooy dañ koy teg ci loxo la reine mère soxna Soda Marème di mbégte lool di dégganteeg moom di mbégte du weccoog moom tamit tey xalaat ci lu baree baree bare ñu am mbégte di déglu ñëpp Saar Maroc démb sa yaram tàng na trop trop trop ba tey jii. toj nga fi bopp jaamur sotti ci essence tàng na trop et je comprends et je comprends j'ai dit je comprends effectivement parce que waxna len ko dama dama choqué wu scandalisé wu ci bare bare bare bare maa ngi nuyu ñëpp nag cat ba ciat ku lim juub aaroo are on a prompt euh, rétablissement waaye dégg naa la soxna Soda Marème wax nee na ñoo nga bëgg ndaw lu guddi waaw <laughs> loolu yëpp nag day gën a neexal li nga xam ne moo di waxtaan ci jur bi parce que gis naa ci ay sens de la responsabilité tey dañu wax sens mesure ak responsabilité gis naa ci biir waxtaan wi tamit ku nekk di nga défendre sa position indi say argument teg ko te loolu yëpp nekk ci yiw ci kaw dëgg ak ci kaw loo gëm kon dañ ko gën a war a lawal waxoon naa la commissaire Sadio wax na ma ko nee na ma Pape Alé man ci famille bi laa bokk ba moo leen waxoon ci famille underground bi ñoo xam ne doo leen xam mais damay waxtaan ak ñoom ci téléphone muy kilifa kilifa diine ñi di wote ñi di wax na papa ale ñun ci underground bi lañ bokk mëna ne bax na man fofu sama gën ci yeen ngeen may léra ñu lay gàgganti di tek di ñaan di ñaanal ñëpp ñi nekk ci yu ak ñun donc euh kena mu sa fay soxna soda mara dedet gis na ñi ngay réguler fara aja timit ñom def na trump ak joe biden ñoleen soral trop ñom ñaar ñu ah c'est vrai <laughs> sa waa ji leeral du dul joxati jarbaatam yi dara ku leen wax mu ne leen comme ay tiktok ngeen fi nekkee ak loolu loolu yëpp dafa bokk ci sensibilisation dafa bokk ci euh, wax nit ñi te lépp nekk ci yiw yiw waa APR génn nañ communiqué mais duñu tere wax li ñu nañ communiqué di naqarlu waxi kooku kooku laa koy tuddee sax man vraiment sincèrement parlé daf maa choqué wu ba nga xam ne kooku diw wax diw xam nga euh, kilifa yu mag yi buñ leen bëgg a buñ buñ seppi woon nit nga xam ne sën rek moo dagan ci moom dañ dañ wax diw diw waa diw ci waxu diw yooyu boo leen déggee mën a diw rek moom laay wax diw diw parce que ma laam ni mbir dootul jaar ci turam bugguma ko parce que vraiment fitna bi mu ñu teg mais laata loolu fitna boobu du fitna sax parce que euh, euh, euh, du fitna sax mais lu mu tàngalee suñu xol yi parce que lim bëgg du am lim bëgg du am mais wax rek moo tegginiwul rafetul diw lim bëgg dadul am. dégg naa diw sax dafa yor ay cummikaay kenn moo tax cummikaay Sarr Mara wax nañu jaar-jaaram bu baax a baax dégg naa tamit dafa yor cummukaay diw diw dafa yor cummukaay diw sëriñ rek ay diw dañ lay wax ne li nga bëgg du am te naafiq yi nekk ci réew mi ñemewuñ condamné li nga wax di war mbi di taxaw fele di ragal wax ji di ko raay duñ ci bok ñu la famille duñ ci bok dedet duñ ci bok la la wax wax ji duñ ko ragal duñ ko ray dañ koy ñëmé jaar ci digg bi xam nga lutax xam nga lutax da ngay dégg ñëpp ñu lay wax ne wax na non c'est-à-dire parce que bul aborder sujet boobu euh, dafa sensible ñun stigmatiser wuñ benn xeet waxuñu pël waxuñu alpulaar waxuñu tukulóor waxuñu kenn diw lañ waxat ak diw moomu yëkkati kàddu yu tegginawul jaaruwul moom lañu wax xaw ma ndax dégg ngeen ma am déet moom moo yëkkati kàddu yu ñaaw wax ko ci réew mi mu dal diw moomu nag lañ waxat wante waxuñu ci askan bu mu bokk waxuñu ak ñi ñu bokk parce que lu tax ñun au contraire daf ñu choqué moo tax ñu jàpp ne diw ci askan woowu mu bokk askan woowu ak xeet woowu le d'accord nag moom lu ñuy wax loo tax ñu diw moomu li mu wax waxit dof la waxi ku ànd ak farimata bandax la waxi ku kata kayni la waaye ku fiy dof dof dañu wax ne gaalu dof du teer man leen déedéet gaalu dof dina teer waaye day teer fu dul neex ay mbokkam gaalu dof du teer en kay gaalu dof dina teer mais day teer fu dul neex ay mbokkam kon diw moomu ay mbokkam laa wax ñoo ko war a woo wax ak moom ñun waxuñoo benn alpulaar waxuñoo benn pël waxuñoo benn tukuleur xam nga lu ñu wax diw mii li mu wax dafa ëpp te li mu wax ba mu ëppee nag ku mbaam mbaam ñu lawbe lawbe la sa kaw waaw waaw ku mbaam mbaam ñu lawbe lawbe lu sa kaw fëgg la ay yet yow da ngay wax ne yow yaa ñaqaar fu koy waxee ñu da lay fëgg léegi ay yet ba nga na nem xam na waxi dof nga wax tey gis nga loolu stratégie la bu nangu ñun ñi nga xam ne ñooy dénoncé di wax ne lii jaaduwul bi ñuy bëgg a teg ay problème de conscience dañu teg xel déedéet ñun amuñu problème de conscience de diw moom bu waxtoon loolu ñu ngi ci leneen xamal la lan wax Mansour wuy jul of nag masuur wuy jul of nag yaa sa goro na ngeen toog tuuru famille lay doon xaw ma lu doon mu ne la Mansour nga ne ko naam mu ne la bu ma gàkkal yow laa dénk lépp genn wàllu milliard milliards nekk ci yow laa ko dénk Mansour yaa may soxna mu nga ne ko naam mu ne la Mansour laggal wuy ji of nag wax fan nga dugal soixante-huit milliards xaalis bi ñuy wax ne dañ ko war a dugal ba tey ji nit ñaa ngi ci mbënd ma ñun ci loolu lañ doon wax loolu mooy ni jot te loolu bàyyiwuñ ko Mansour demal wuy ji OFNAC Mansour demal wuy ji François Ndiaye Mansour Mansour Faye magu ma Marème Faye Sall demal wuy ji loolu lañu wax loo ci loolu lañu nekkoon débat boobu ci débat boobu lañu nekkoon kenn duñu divertir parce que débat boobu ala accu kenn du ko ba ala accu kenn du ko ba diw fexe fële ci lang nga ñew diñu wax wax yo xamné ñu heurté wu am nañ ci droit né diw momu nak attention fakk ñu régler problème am ba pare delu ci wat parce que comme ñom dañuy créer ay problème rek dans des problèmes ñun am nañu jot problème bu nek dañ ko seppi teg ko regle ko diw moomu ñu ne ku fi mbaam lu ñu lawbe lawbe lu amuñu problème ak benn alpulaar amuñu problème ak benn pël amuñu benn problème ak kenn benn xeet Sénégal xamuñu xeet kaa ah, kiit mu laa na ñu dimbali wax xeet seetlu nag seetlu moo ñu may ñu dégg gis lu doy waar Senghor ñëw na fi doon séeréer Joal di ko ndamoo ba def kenn mosu fee dégg waxi waaso waxi xeet 20 ans de pouvoir Abdou Diouf 20 ans de pouvoir Ken musu fait deug xeet ken du ko fi deug musu fee dëgg waasu loolooy dëgg Abdoulaye Wade 12 ans de pouvoir Ken musu ko fee dégg Macky matalowul sax xama ñaata de pouvoir Bamuy tok ngay deug waaso waxi ci waaso Bamuy tok la la wax 2012 le coow li takkarnaasi mu toog ñu koy nëpp nëppal di wax non gars yi non non nañu toog gars yi gars yi non non non non non gars yi faut diw ne tel na ko bàcc li nga xam ne ñun ñëpp xam na ne yeneen ko doon muuram too suuf président Macky Sall moo fi tok rek ñu dégg mbiru waaso mbiru xet ak yenn yo xam fi sama titre foncier la fi maa ko moom fii bàyyi yow titre foncier président de la république fop nga fop yaay sunu président yow yaay sunu président mu neex mu naqadi yaay sunu président baba ñëlé madame niñ ma teroo

ci bind dëgg séeréer na gën a jee que alpula nañu waxante dëgg rek te yàlla tax président on vous aime bien yow teranga boo am séeréer yee la ko jox <laughs> ñun da xam ñu benn teranga boo am bu tugu alpula di jox alpula rek da ngaa falu ñu jàpp ci yow te waay sunu makki sunu maki mais yow teranga boo am séeréer yi ñoo la ko jox maire fatik nga xam fa nga def sa base politique dama jigi la ñu wuti ko fa wuto fenen fii nga xëy suba li may wax ni day leer tàppe leen ngeen sam samni mag fuuta fii ngeen xëy suba teel dagg dix mille hectares jox ko naar yi adowaa ak dodel man mii ma wàcc fa def campagne de sensibilisation dix mille hectares naar yi ñu joxoon fii ci pompier bi pour ñu def fa immeuble mënuñu eggale seen immeuble di daggale dix mille hectares waa APIX ñoo ko defoon ñu wàcc def campagne de sensibilisation ñu ànd ci waa ENDA di xeex ba nga annulé décret bi ma dem paay ba ma dañ wax dañ ma dañ ma Macky bu nekké duguloon du du futanke ya. man leen luy futanke mu ne parce que bëggul suuf ñu loolu la loolu ñun ñoko ko xeex man ni dem leen limay wax ni tout de suite bu la nexé man ngeen dem ci youtube ngeen tapé samedi mag pap ale futa ngeen génne ko dodel damit ma fa dem ngeen gis ma dugg ci auto yi di wër ci village yépp pay di wax

Mansour damul woy ci François Ndiaye mi Macky moo ay ci François Ndiaye li ko toj Sénégal yëpp wala jox na la force Covid l'histoire retiendra que général François Ndiaye moo dirigé force Covid ndeysaan goro président na ko ñëwuma général boo xam ne chef yaa war a doon chef détat général des armées si yoon ah gars yu bëri xam bëri wax nañ ma ci yu bëri parce que mën a ay suul ndaanaan léegi nag après léegi mu jox ko ambassadeur ambassadeur wala quelque part waxon te deug go représenter dew yobuma benn kay bon en attendant may delu ci wat ci diw pour wax le nafiq gi nek ci rew mi ki ma sekk mom waxtan moy gor gi nga xamne moom ngeen leen gis ci marche ñoo lànk ñoo bañ muy tonton Alassane Ba doon yor kaan bi nekkoon mag moo xam ne instant bi war naa toog këram ak njabootam yàgg de politique nag xam bu baax politique nekkoon CDP garab bi nekk PDS man yàgg naa ko dalal plateau yàlla def ñoo may relation yu rafet muy sama tonton émission bu ma def mu xool lu ñu war a critiquer mu critiquer tey jii cent pour cent déglu ko bu baax a baax li muy wax li muy wax déglu leen ko bu baax a baax a baax a baax léegi nag ci loolu moom ci boppam moo def interview parce que dafa choqué wu ci lu diw wax diw diw déglu tonton Alassane Ba sénégalais yi bëri xàmmee ku ràññee ndaxte malgré âge bi nga xam ne am na ko daana ñëw teew ci li nga xam ne moo di marche ñoo lànk mooy xeex bu métti bi ñu amoon te chaque jour gars yi demoon ba ne moo doonoon maskotu li nga xam ne marché bi wante tey jii dañuy waxtaanee coow li nga xam ne benn député Aliou Dingori Sow wax na ko jëm ci wàllu xeet di wax ne nañu jël euh, li nga xam ne moo di ay machette ak ay jaasi pour troisième mandat bu Macky Sall loolu euh, tonton ban jàngat nga ci def ak it ndax jurul tiitaange ci a ah jërëjëf Papa Alé dafa gën a bëggoon nga xam ne man a àgguwaat bii sama yaay yi ñu juddoo bokkee ci mooy set sama papa juddoo Aéré Lao Aéré Lao la doon wax ay bokkoon cercle Podor ak Ousmane Kaskas donc la voilà dégg ngeen li mu wax ma résumé leen ko nee na sortie bi diw bu ma tudd turam diw sorte boobu nee na c'est bien calculé ña yabaloon pend ba ba procureur nga xam ne mënu woon bañ a jàpp pend ba ndax jàppoon na euh, kooku doon way tuddee woon Macky Sall tur woowule <laughs> léegi procureur ba ko jàppee mu ne Penda Ba bu mu da dañ ko jox passeport génne ko mi ngi diggante Havre ak Mantes la Jolie mu ne ñu yéen woon Penda Ba mu ñu saaga ndey wolof ba doyal mu ne ñooñu même groupe bi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw diw parce que vraiment diw rek laa ko mën a tuddee su ma ne diw rek comprendre na la moom laa wax nee na même nit ñi ñoo nekk ci ginnaaw kii bi nee na nag trois cas moom. nee na trois camps ñooy xëccoo pouvoiru Macky Sall camp boo xam ne ñii la alpulaar yi mu ne moom la ak ñoom Farba Ngom ak ñooñu ñooy préparé coup boobule mu ne beneen camp bi mooy euh, Timbo ak Sall ak beneen camp bi nag mooy famille bi ñoom Marème xeex boobu nag. ci la ñu nekk mu ne te ñag wax mu ne ce n'est pas gratuit Macky Sall moo ko a wax ba mu demee ci daaka bi moom mooy nettali de nee na boobu da ko bindoon lettre parce que Macky Sall dafa na ko su ma toogee fal waa daaka bee ma fal interview dem leen surtout Dakar matin ngeen cliquer ko déglu ko bu baax a baax ci lim wax mu ne nag ay pyromane lañ taal réew mi du dara ci ñoom taal réew mi du dara ci ñoom xam nga Sénégal moom ñaari président la ñam président Macky Sall président farko Ngom mu ne Macky Sall moo ko njëkk moo fi am parce que nit moom bu demee ba nga xam ne ministre dañuy ràññi wut audience yow tu es puissant tu puissant te looloo am pour nga xam ne boobu ba léegi li Saar Marok di wax mooy dëgg dégguñu woon dégguñu woon la ñuy boobu ba léegi laa wax dégguñu woon li Sénégalais yi sokew yépp xam wax ji bu ne woon kër gi ñu gis kilifa étatique li ma wax nii góor gee ko wax na dem leen ngeen déglu bu baax interview bi nee na ñetti cas yooyu ñooy xeex benn cas bi nag ñoom ñu ngi organisé wu mooy cas wu diw nee na même cas bi yónni woon Penda ñoom fi nekk te loolu ñun xam nañ ci ay réunion ak yooyu parce que jàpp nañ ne xam nga dañ leen dévolution euh, monarchie du pouvoir léegi dévolution ethnique du pouvoir la ñu gëm parce que dañ koo gëm ba di ko wax xam nga man wax sax xam nga tegal naa leen fii bële passé kooku nga xam ne dafa ne sous région bi. la ceinture de bundu xam nañ li ma wax ceinture de bundu dama ne ceinture de bundu fa fan lañ koy waxee ñoom dañoo koy wax ceinture bundu loolu mooy seen terme bu ñu utiliser nga dégg kooku wax ne teg nañu Gambie Adama baro teg Macky Sall mi ngi Sénégal teg nañ Umaru Sissoco Embaló euh, Guinée Bissau euh, Buhari mi ngi Nigéria léegi teg Cellou Dalein Diallo moo des Guinée. ñoo ko wax seen wax rek laa leen wax waxaat dafa yiwuti wax jooju même boo leen ko amee muy projet tëj leen seen gémmiñ tëj gémmiñ ngeen foog na ñun nag dañoo def waaye balaa may dem jël leen seen jaasi boo leen jël leen seen jaasi ñeneen ne jël leen seen pistolet foo leen jëm naa balaa ngaa xaj jaaj ji yóbbu pistolet bi yóbbu la si xabaar kon nee naa leen duñ leen inventel dara parce que xam nga des fois booy def yenn projet yi sax faut naa fekk gi nga xam ne moom laay wax tey déglu leen Sénégal moo ma jaaxal quoi dafa neex ko quoi Abdou Karim Fofana tey déglu leen déglu leen xanaa c'était plus simple mu ne ba écoute ci pas écouté l'audio la vidéo j'ai juste suivi les commentaires du ma ci sori waaye yow dana deglu wo audio sétano vidéo commentaire bëgg justifier nga bëgg justifier jëm ko wutal lay un irresponsable di taxaw ñu laaj ko mën a jasim ba pare nag dañu non mais attends mais daf ñuy mais c'est de daf ñuy dañoo saaga sa moom diw dafa wax toj ba pare wëlbatiku xool sénégalais yëpp saaga leen ne li muy wax moom pëli nekk ferlo rek ñoo ko war a mën a comprendre nous on est bête on est bête mais fàttali fi amuñu benn problème ak benn alpulaar amuñu benn problème ak benn pël mais am nañu problème ak kenn ku bokk seen xeet wax waxi dof di mbaam mbaam lu ñu war a lobeloo ci kawam jeex na tak. c'est clair wax ji doo ko ragal de doo ko ragal muy benn ma dégg ko Karim Fofana ay waay jeune nga jeune yu bëri dana wax ne waaye mais vraiment jeune nga gis nañ la peut-être tu es tu es courtois gis nañ la peut-être gars yi seen bon

bañ ko war a ay lever unité parlementaire mu ne ce pas nécessaire parce que flagrant délit la wax mu leer nañ non Karim Fofana daanu nga di sat bu rëy nga def daanu foofu nga jéema la justifié waay xam na Aliou mais xam nga Aliou d'accord jaasi Dakar ak jaasi Ferlo du benn yet ak jaasi du benn wax ji du benn waaw mais soxna soxna boo dégluwul nga noppi nga am maadu be foofu laay wooye naa féq dégluwuma même ñoo bokk parti dégluwuma ko laaj ma ma ne ah peut-être que ma journaliste

Euh, euh, il faut le mettre dans son contexte xam le loolu wax Sénégal non mais non billahi des fois yow wax joo que ne dégluwoo ko déggoo ko nga d'accord man su ma ko bon merci on continue sur une autre question comme dégluwoo ko beaucoup de commentaires naafiq ni ngi tàmbalee parce que bobu li deug ba deug nak ñom ñep xama patte gin pataral ne mi xamuñu ndax waa jooju il est en mission commandée ou pas xamuñu ndax kër gu mag ak lobby yi nga xam ne guddi il commence à fonctionner à partir de 23 heures jëm 7 heures du matin amna groupe groupe yu mel non 23 heures 7 heures du matin lañuy teud def sport ndékki teud instant boobu ñooñu ñooñu est ce que ñooñoo ko yabal léegi nga ne non attends je pas mu prononcer wóorul de tam nekkati kilifa kilifa gi moo ko yabal pour mu wax wala wala xaaral ma noppi sax parce que est ce que gars yi bëri doole parce que dafa am dans le système lobby ñoo xam ne pour ñu dàqalu la ci Macky Sall yomb na trop nen neex la ñu duggee Mermoz heure bu nekk lañ fere nu neex la ñuy toogee ak président xam nga wax soo waxee rek ñu commencé way ségalé et puis diw jakar la ñun ne amul dara lu ci regretter je ne regrette rien parce que goor gi wax na lu bare bare gis nga lim na ay nit ne bëgg na ñoo ñu prononcer wu abou abel el haj kasse rasin si wax na ko ay tour mëna ñu ci yok timit babu mal mal comme xam nga sar mara wax na benn débat solo neena ñoo ñëpp bu ñu gënon wax xam nga ñun am na kenn ku ma envoyé benn kii bu am solo vraiment. te boobu Aliou Dembourou Sow wax ah dañu koy ñaawlu di si te boobu. mbokku diw la su mën a mbokk mën a ñoo bokk mais moom dafa leeral am na solo lu mu wax moom. bu Aliou Dembourou Sow wax ah koy ñaawlu di si méttalu loolu wax. fi sam la kàddoom la waaye du kàddu poli ndax poli doxe wuñu noonu ndax poli liggéey ak jaamu yàlla topp seen juri loolu lañu xam jaasi yooyu muy wax poli jaasi yi ñu yor mooy sàmm seen nax yi mooy sàmm seen xar yi mooy sàmm seen béy mooy sàmm seen yi mooy liggéey seen tool yi loolu lañu gàddoo ay jaasi ndax kenn ku ne xam na ne fii fetel du fi teg nit jaasi du fi teg nit ñi sénégalais ñoo lay woolu am ci yow confiance teg la fi li ngay wax président Macky Sall li nga ko mën a mooy te fekkee sa mbokk la wala sa kenn la mooy nga nekk Macky Sall président Macky Sall respecté constitution sénégalais respecté sa engagement ak sénégalais keneen ko fi yàlla teg mu toog fi Aliou Dembourou li mu wax kenn àndu ci ak moom du waxu yi waxam la yi am na ñoo xam ne ñii. ñii ñu ngi ànd ak Macky Sall ñii ñu ngi ànd ak Abdoulaye Wade ñii ñu ngi ànd ak Sonko ñu ngi ànd ak keneen am na ñoo xam ne tàmm nañu bu benn pour defee lu ñaaw bu ñuy wax dañuy laawaale foli te nit nag keer boo dem am na ku am xel am na ku gàtt kenn am na kuy def lu baax am na kuy def lu bon kon nag nañ ko delloo foofu. très bien ñu delloo ko foofu ak da neex di wax rek. nga gis une réaction des personnes autorisées bon xaaral ma wutal leen euh, mais su autoriser may ak a rek mu wax rek nga dégg euh num tudd Baaba Maal je peux dire comme ça Racine quand même ñu ñu bari bari bari ñu mënon wax mais ñu ne pat qui ne dit consent lool la mom la gay wax xam nga ñun jiñu ñu kenn. ndax suñ dëj mën nañ ko jooyal suñu bopp li may wax rek suñ dëj mën nañ ko jooyal suñu bopp bu baax a baax a baax te jooy boobu nag dañ koy wax ca kaw sénégal yi duñu dégg voilà dama leen ni liiral li waa APR wax dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux notre camarade du wax naa ma tudd turam diw a tenu des propos inacceptables et inopportuns l'alliance pour la république tient à exprimer ses regrets aussi la paire se démarque de tout propos et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances enfin l'alliance pour la république appelle les responsables et militants à éviter les débats stériles à rester mobilisé derrière son Excellence, Monsieur le Président Sall, pour au Sénégal tourner vers l'émergence avec une société solidaire dans un état de droit. Fait à Dakar le 13 octobre 2020, signé le porte-parole Seydou Gueye. Très bien. loolu ah pour foog nañ ko de te nag lii dëgg ba dëkk dëgg maki bëggul bañu ko wax ci troisième mandat bi bañu ko ko lijjantil de ku ne ko munoo def troisième mandat loolu la wax munoo def troisième mandat ku ko wax mu dàq la Moussa Diop ci mujj ku ne yow président maki Sall yaa waxoon ne abaa ne nan la ko joxe na ko ah fi lay yem sax jeex na ñuy aussi nag président boo mënee seetaan lu mel ni benn sanction lu benn communiqué bu sa parti Assane Diouf parce que fii Sénégal yaa fi tëj di génne ah. Assane Diouf war nga ko mën a libéré war nga ko mën a libéré parce que nag dëgg neex yàlla war nga ko mën a libéré Assane Diouf. du dëgg kon nag gars yi président Macky Sall nee na troisième mandat troisième mandat ma ñëw ci générique bi parce que pare pareeguñ ci de pareeguñ de maa ngi yéen. Dakar Matin. nul ne peut faire deux euh, la constitution est. li ma nag ñi ñëpp di wax ku leen laaj ñu ne leen c'est pas ba wax fii boobu c'était la matière. man daal yóbbu hmm. te dootu ko laal. Seydou. premier. donc après cinq ans c'est fini. matin. Abdoulaye Boun Dionne. Ismaïla Madior. personne qui tient très clairement hmm. buy dox 2016 man ma proposé le Sénégal révision constitutionnelle Bon, xamné dama ni hmm. mandat yi dafa wara a tak tàkk hmm. jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu mandat dañ ko bindu mu leer nañ ñaari na faire plus de deux mandats consécutifs xana kay ku jang tuba boko ko lolu war na xamné indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu né mandat bi ñu hmm. la benn yoon lañ ko mëna donc boo ko renouvelé. dëgg ñu yokkaat ci. dëgg la président mais de toute façon kenn mënul ñaari mandat yu tegal. oui tout à fait constitution bi wax donc loolu leer na man naa ne sama benn mandat. ah bu ci deux mille dix neuf lay jeex. di coobare borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb. ñoo koy ci yoon. jox nañ la ko si si deux mille dix jox nañ la ko waaw su boobaa man pare kan naa ci. pare def lu ëpp ñaari mandat yu teg en tout cas de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu def mbir ñu wax mu leer mu mu fi. Dakar matin. ñun tamit yamale nañ ko fi wax jooju monsieur président très bien tey gars yi xam naa sori ci live bi tey moom dañ bëgg wax ci rek ak yi nekk ci réew mi ji comme nga APR génn nañ wax dégg nga waa APR xam wax nañ moom wax ji wax nañ léegi gis nañ di génn di wax ne c'est des déclarations à condamner parce que ce n'est normal parce que ratati matata dan boobu ñu doon fan la kër gu di oriente wax ci xam nga lii moom Seydou Gueye bu ko mooy kilifa gi moo ko woon ko par rapport à ça léegi bëggoon nañ xam kër gu mag kër gu mag tamit na affaire ah coow li bari ah euh, waaw mais euh, antenne bi su ma ko ubbee ma ko yóbbi ci 17 euh, minutes parce que wala ñu bàyyi ko noonu rek ba jeudi ñu ubbi antenne bi waxtaan parce que li waxtaanee woon nañ ko dimanche aussi xam nga léegi nag ñu doon xaar tey ci guddi tey ci guddi laa la wax te nekk ci réunion di wax di wax di wax di dugg wax di wax di dugg di wax waaw. xam nga ni commencé wat suba chronique dina am mom la bëgg a waajal nii chronique bi la bëgg dem préparer ji ni ci livre Thierno Alassane Sall parce que nak légui Alassane par ni ngi dugg nak ci walu pétrole bi pétrole bi ma wax na la gaay dañu sango pétrole bi lu garaaw graw petrol pétrole bi leen ci wax inshallah allah suba nak lañuy tambali chronique jëm ci pétrole parce que terre bi légui mu jeex kon euh, la famille ay ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah gërëm boo xam ne nag am na tàmbali amul jeexatal kon di wax ne yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te diw bu fi mbaam mbaam lu rek ñu te day teer neex ay mbokk voilà loolu foog ñu xam ko ay ñu fanaan a jàmm gaay mais docteur Thiam yow gëj nañ <laughs>